sama gars yi ci fees bi de. mbër. maa lay ziar. delloo ziar jiili. naka jàmm. taw fekkee. sant bu fekk la ci xew Boy Faye seen diggante lan la. waaw Boy Faye dafa nekk koo xamante ni xam nga kenn la si ñun quoi. waaw dëgg la nag ba mu ñëwee si écurie bi yàggul sax mais xam nga moom moo liggéey loolu quoi parce que moo rafet. waaw loolu moom mun nañ ko ko seedeel quoi nitu àjjana la te Baay la. dafa léegi mbër yi fi mu toll ni ay kilifa lañ parce que mbër yi ngi am soxna ñu ngi ngénte ñu ngi dund ci làmb ji aussi ban gis-gis nga ci am. waaw loolu mooy yoon sax xam nit ku nekk tamit da ngay ñaan yàlla si li nga nekk quoi moom avancement waaw loolu tamit xam nga mënul teree gars yi tamit nekk si liñ nekk waaw su jotee rek ku si war a am soxna rek incha allah yàlla kàttan na la nga am ko. non non. ci biir. déggu ma. am mooy loolu. kenn fëggul man cundung maa ngi nii je suis seul. loolu yéeme na baax na ñun ay Baay Faal lañ sëñ Faalu rek. waaw noo dundee moment bi nga xamante ne moment Covid la euh, activité yëpp arrêté te yéen bëri d'habitude bu ngeen bëriwul woon arène di ngeen dem ci làmb simple yi toog lu mat un an léegi ngeen dugg si bëriwoo leen loolu nu mu demee. waaw parce que instant bi dañuy profité comme si occasion yi sax parce que boo seetee activités yi si làmb rek moo doxul mais si sport am na yoo xam ne moo ngi dox mais si làmb rek moo doxul quoi te loolu noonu di yoon ñi ngànk làmb ji quoi ku si mel ne ay ñoom Gris Bordeaux ñu mag a mag ñu mbëri mag yi dañoo war a wax si loolu parce que gars dañoo war a di bëre quoi waaw tamit xam nga rek gars yi mënuñu di entraîner tamit te duñ bëre loolu day metti si gars yi trop barke Sëriñ Bamba. ministre ah, ministre tamit mu bañ a déglu gars yi quoi xam nga mu xool lii yoon. nañ xool lii yoon rek ñu def ko duñ na feebar bi am na wala amul mais dañoo war a bëre force waaw parce que tamit instant bi un an kenn bërewul xam nga kenn xëppoowul kenn deful dara loolu day rey làmb billaahi te instant bi tamit bu dee si loolu lañ jëm tamit après affaire yi leneen leneen leneen lay juraat waaw parce que mbëri tamit bu ñu fippoo ba mars moom gars dañuy mars nii rek dañuy kii mbëri bu ñu moom dañuy waaxu waaw waaw na lay jaajëfal bu baax. waaw fii la rawee nag mooy loolu. dóor